dafa mel ni mu gën a ëpp buzz. waaw président Bassirou a Diakhar Faye. déedéet déedéet déedéet Bougane <laughs> démb soppeeku na def mel ni comportement la moo gën a def live ah bu fekkee élément bi disponible mu ngi kii mu ngi. day live dem na sax ba ci saak saak ngi nii. ñi ñi ñi ñi seetaan <laughs> mbokk ñi déglu ko ay quelques minutes yoo ci plateau bi bu fekkente ne <laughs> ah, euh, élément bi disponible euh, zal ñu xolaan ko comme ça Diagne am tuuti kii waay euh, <laughs> parce que Bougane Gueye Dany temps yi commencé moom ci ci saagu xam soxla premier daal ah moom lay ci ci lay wax ci xaay nu mu seeree ah, ah, ah bëri na ci kii Bougane ban appréciation waaw man ñi nekk ci panel bi yéen a ngi may laaj suma xalaat ci

jeunes yooyu tey di dem ci géej gi yaakaar bu rëy lañu ñu placé wa ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñooñu di dem ci géej gi tey bokk na ci jakartaman yi nga xam ne alkaati yi ak lu xeetoo dañu leen di kar ci tali bi di nangu seeni moto moonte de defuñu lu may góor góorgóorlu ngir mun a teral seeni wéyjur tekkee ci réew mi marchand ambulant yi ñu tere leen lal di dal ci seen kaw Monter ay sénégalais lañu yoo xam dañu set ban yoon lañu mëna def pour régler seeni problème bop Monter état mo leen ko warona régler regardez les travailleurs des collectivités territoriales danaka at kenn faalewu leen ñu melni bokku ñu ci Sénégal té li ñuy laaj seen droit la nguur gi fi nek diggoon sénégalais yi né dina régler seen problème tout le monde s'est rendu compte que c'était une c'est une supercherie ñëpp xam nañ ne naxe mbaay la monté ci moment bobu ñit ñi président de la république defna na juni kilomètre kilomètres ak durum, trente cinq mille kilomètres di tambal mbalu nek un migrant de luxe fu nek mu tek fa tankam fi mu ma nga France monté dañu waxone ne dañuy France monté dañu waxone loxo bi France tek ci Sénégal dañ koy téggi ana dige yori, ana waxu français fa ana deni fi dindi caisse noire du président di jël di passer passeré ana luñ ci def ana luñ waxone dañuy rationaliser lu état bi jaare ko ci agence yi ak direction yi mais li fi Ablaye wad indi won Macky Sall ko biñu ñëwé nit ña fa nekkon lañu rocci ñom ñi fi né sen clientèle politique yegg nañu sax légui ba ci placer ay papa yaay dom ci bir gouvernement def ko yëfi mbokk

D'a même bu opposé euh, euh, son excellence fësalu ko won fan la ko ci déclaration président Ousmane Sonko que euh, JPS mu Grand Théâtre ne patron de presse fixe fisc

korite jot yéen a ngi tabaski jot si la Bougane demee euh, fële ne Masalikal Jinaan ñu interviewé ko mu wax ne man maanaam euh, ñàkk fay moo ma gënal di wax lu dul dëgg du dëgg ci la ko waxee woon ma jàpp ne ne waaye yow kon moo tudd Bougane Sonko dafa tudd Bougane Sonko dafa tudd kay dafa tudd Bougane kay. ah nu mu ko tuddee. Euh, euh, patron de presse yi. waaw léegi kan la. patron de presse yi. waaw léegi kan la ci. Bougane ngay Bougane ci la bokk. déet ci la bokk waaw mel nga ne nga ne chauffeur bon. waaw te doo ngay chauffeur te bonoo loo ci war a. waaw loolu dëgg la. ah mais sëgg la nañ wax di dëgg. duma dem. Hmm. ku moom xar mi nga bàyyi buum ay patron de presse délinquants fiscaux lañ. waaw yow patron de presse nga El Hadj Ndiaye du patron de presse. patron de presse dégg nga ko mu wax. waxul de. patron de presse la dégg nga ko mu wax. déedéet euh, kii Ndour Birane Ndour. Hmm. dégg naa ko de mu wax. mu leer moom li mu wax moom dafa ne fay na. Hmm. mais dese na xam nga kooku am na courage. wax na lii am. waaw mu métti ak mu neex mooy fay naa lu ma un milliard et quelque mais am na lu ma dese. kooku moom honnête na ci li mu wax. Mhm. léegi moom it mënoon na bañ a tudd sax ñii ci loolu parce que dafa ne rek délinquants fiscaux man du ma délinquant du ma tontu nañ te dëgg kenn du jël sa xaru tabaski di dem ñuy yuuxu sàcc ngay bàyyi euh, euh, buumu xar ma voilà. ah man de bu ma jëlee sama xaru tabaski billaay bu yeboo ñëpp du yuuxu sàccoob sàccoob sama yoon nekku ci parce que sama xaalis la dama ko ñàkk téye sama buumu xar. Mhm. mais ku moom xar mi rek nga bàyyi buum bi kan moo la wax gale bokkoo ci lu la ko lu la ci def ba mu génn di wax ba pare ma jàpp ne ne bugaan bi muy wax noonu ne euh, bi mu meree ci loolu lu mu ci njëkk a def ci délinquants fiscaux yi moom moo mu génn wax lu wax gu ñaaw googu ma jàpp ne moom moo wax de ne maa ko déglu benn bi moom Moustapha Diop bu Walfadjri hmm. moo ko invité diko ko laaj mu ne bu fekkee di wax de ah. bu ma fekkee Macky di xeex ak keneen bu ma ñëwee damay sotle keneen ki rek lu mu am rek ko Macky dóor ko wala gàjj ko wala lu mu mënti def rek defal ko ba ba ma lu xew parce que mooy kon wane na bañoon na Macky. vidéo. dëgg la wala du dëgg xaw ma montage wala du montage Pape euh, Pape Diallo Pape kii Diallo Pape kii ki nekk Walfadjri Pape Matar Diallo mhm. ak euh, maam Birame Wath mhm. invité ko mu ne élection yi ñu jëm man bu ma doonul candidat Sonko doonul candidat ku Sonko joxoñ moom laay jàppale waaw moo ko waxoon wax de waaw waaw léegi Sonko amoon na candidat wala amul candidat moom moom Macky mu taxoon mu koy comparé ak Sonko. waaw Sonko moo def lu tax moom mu dellu ginnaaw. lan la Sonko def. Sonko dafa wax nettali bu mu génnee prison. waaw ne am na ñetti yoo xam d'accord ak Macky Sall. waaw wax ñetti yi mu d'accord ak Macky moom na moom la Sonko wax loolu. waaw waaw léegi ma jàpp ne. moom Bougane. waaw. kii. Euh, waa ji Sonko Diomaye warutoon toog a mag. déet déedéet déedéet bañ toog toog. ñëppay toog. moom ci boppam moom Bougane. waaw moo wéddi ne toogawuloon ak Macky. kii nu mu l'autre kii nu mu Birima Ndiaye waaw ne ko tooñ daanu Macky. waaw loolu waxna na accusation la. déedéet. nee na ay déedéet déedéet déedéet bu ko def accusation. nee na indi preuve am déedéet kan mooy indi preuve. moy moy Birama Ndiaye. wa léegi nag Birama daf ko ne. Eh. yow Ablaye Mbaye Péex mo mo fexé fexe ba nga pour audience pour nga gisanteeg Macky. ana image si. ana image. léegi lu coow li lu mu waxoon moom bugaan nañu taxaw de. bugaan ne ko. dinaa porter plainte parce que li ma wax da nga maa diffamé. waaw waaw léegi na porter na plainte. lan ma lan ma la la am na ci diggante bi. léeg-léeg lu mën di dañ la waaw dañ la tuumaal. tuuma du tey tuuma la tuuma la dañ la wax ne ne da ngaa def lii wala da kaa seeti nga ne seetiwuma ko ñu na la yàq da ngay leeral sa der yëpp dégg ne danaa porter plainte moo wax de porter lu ñu mën di defaat ci suuf même bu birima jéggaloon ci suuf te dafa war a génnaan la eh. birima moo waxoon carrément ne gis naa ak Macky ma ne ko gisante wu ma ak Macky ma bëgg ko porter plainte mu ñëw jéggalu ma ma bàyyi ko sa der set te boobu ba léegi waxaatu ci dara ma jàpp ne ne li mu waroon wax wala li ku taxoon mooy lam doon xeex Macky dëgg la wala du dëgg gëwuma ko parce que mënoo di xeex nit presque lu mot fukki at ak ñaar ba yàlla def ñu war a euh, war a teggale bopp Macky ak réew mi mm. nga war ci ñëw jàpp te jàppoo ci loolu tax jàppoo ci nga ne ñoom Sonko dañoo wax ak moom comme ñoo waxoon nañu moom ba wax ne xaw ma euh, du kii rëbës xaw ma nu mu tuddati euh, am na nu ñu koy waxatee wolofal bi. Mm-hmm. maanaam li waru ñoon toog ak moom waru ñoon wax ak moom moom mos ta wax ak moom moom na wax akulaay taalam na mos a toog ak Macky. waaw naka wax mbir mi du toog ak nit ki mbir mi ay principe la. Mm-hmm. Sonko fa mu nekkoon. wala jomaay fa mu nekkoon kaso la nekkoon. Mm-hmm. ku ko fa fekk yaa ko fa fekki. ku ko fekk yaa ko fekki de. ku ko fa fekk yaa ko fekki. waa léegi nag moment boobu nag li ñu bëggoon Macky yónnee ndaw woo Alioune Tine woo euh, kii kenn wax ko de Alioune la wax de. Mm-hmm. ak euh, Atepa. ne Macky moo leen woolu kii ko wax Alioune moo ko wax ak Atepa ne Macky moo leen woolu na dama bëggoon waxtaan ak ñii. ñoom ñu dem waxtaan ak ñoom waa léegi moment boobu yow nga nekk ci kaso bi say njaboot nekk ci kaso bi moom mu yónnee ndaw pour waxtaan pour jàmm léegi lan nga war a du def jàmm damay continuer xeex léegi nga dee ci kaso ba dee ñeneen ña dee ci kaso ba loolu mooy xalaat gi ñoom ñu nekk ci seen jàmm. fa mel ni am na ko nekk ci ligne bi.